salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yu 2STV la télévision autrement am nañ mbégte lool teewaat fii jàkkaarloog yéen seen émission amul nëbboo amul nëbboo nag ni ngeen ko xamee fii la lépp di leere tey nag dañu dalal ki nga xam ne moo di colonel Malick Cissé ma colonel Malick Cissé nag boo ko déggee mooy président parti bi ñuy wax parti pour la solidarité et le développement du Sénégal ñu gën ko xam ci sunu PSDS di ko wax rek salaamaaleykum mon colonel. Euh, waaleykum salaam maa ngi lay nuyu Amadou di nuyu sama mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan waaw. mon colonel euh, waxtaan bi ñu ngi koy doore ci li nga xam ne mooy élection législative yi ñu ngi naan datu 2 juillet bi dañ ko war a reporter wala waruñu ko reporter ndax li muy tombeek weeru koor yow noo jàngate mbir boobu. waaw man de dama bokk ci ñi nga xam ni sax campagne électorale soxaluma lool ndax damaa jàppe ne campagne électoral moo yor sa léget rek di ci naxi béy kon nag campagne électoral lu mën a ñàkk sax la. kon nag ñu def ko ci biir weeru koor ñu def ko ci ginnaaw weeru koor yëpp benn la ci man amu ci benn problème pour buñ ko defee ci weeru koor fukki fan ak juróom nga def ko ci biir weeru koor la ci des nekkatul ci koor ci waaw yow ànd ci ñu maintenir la date du 2 nañ koo maintenir gisuma ci benn ngaañ surtout que dañ koo waxtaane woon ñoom opposition bi ak le pouvoir ci kanamu président Macky Sall ñu waxtaane ko ba mu sotti ñu jàpp dat kon nag bu ñu demee ba ci biir dem ba ci biti am am lu ñu xaw a ragal di jéem a dellu ginnaaw ah lu ñu bëgg rek danañ leen ci fekki. kon est-ce que waruñu toogaat waxtaan. nañ jàppe woon 2 juillet bi ñu waxtaanaat jàpp beneen date. nañu ñaanaat dem toogaat fa ñu toogoon pour ñu jéem a soppi bu fekkee ne loolu lañ bëgg. waaw mais nag bunt moom ubbeeku na. waaw mais mais datu 2 juillet bi buñ ko changé dina am ay njeexital maanaam ay conséquences. li nga xam ne moo di euh, nawet bi bu naree ñëw. ah donc euh, am na ci gox yoo xam ne pour dem voter ji dana jafe ah buñ ci jógee fi mu toll nii xanaa mois de novembre rek ah la ñuy mën a organiser élection yi njeexital li mooy lan mooy député yi seen mandat bu boobaa foog ñu proroger ko. mooy li ma lay wax c'est-à-dire que léegi bu ñu toppalee 2 juillet bi nga xam ne lu ñu xalaatoon la natt ko calculer ko ba mu tombee ci li nga xam ne moo war a am su fekkee ne opposition bi ñoom ñoo ñaan wala ñoom ñoo bëgg da nañ ko rendal. conséquences yi ci war a nekkit nañ ko assumer. muy maanaam yokk yokk mandaaw député yi wala ñu boole jumale sax ñu dàq yëpp rek ba 2019 benn yoon dajale leen mu nekk benn élection jàmm na ñooy ah déet loolu kat dafa mel ni ma président Macky Sall lay arrangé yóbbu ah. élection yëpp ba 2019 yëpp no c'est-à-dire économiquement ci wàllu xaalis ci wàllu liggéey bi lépp dajale ko yóbbu ko 2019 daf ko benn yoon moo gënoon noppale comme gars yi nee nañ leen woon 2 juillet ñëw leen ci làmb ji ñu ne doon foofu baaxul dugg na fi génn fi koor a korite et du ñuy dàqaat ba ay boori novembre octobre di génn 2017 dugg 2018 mieux vaut ñu dajale ko 2019. waaw mais bu ñu ko yóbboo 2019 ndaje bi nga xam ne euh, opposition bi bëgg na ko def muy maanaam am lu mel ni sax ay liste unique bu boobaa day jafe. ah day gën a yomb ci ñoom ndax. fi mu ne pareeguñu waaw fi mu ne opposition jiitu présidentielle opposition bi mën na cee gis boppam. déedéet xam nga loolu sax man am na conséquence tuuti bu fekkee ne parti au pouvoir bi nañu tërale seen législative yi ci seen liste yi am na problème vote sanction mën a am pour candidat wu présidentiel bi boobu jafe-jafe rek la mën a moo fa nekk bu dul loolu benn la nga def ko li ma leen waxoon rek daaw laa leen di waxaat ren suñ defoon élection yi suba président Macky Sall dañ leen gagné. suñ ko defee 2017 dana leen gagné 2018 dana leen gagné 2019 dana leen gagné. waaw xam nga bu ñu organiser bu ñu organiser élection législative avant présidentielle euh, ñi nga xam ne mooy opposition bi seen querelle de leadership. parce que bu dee présidentielle ku ci nekk day bëgg a nekk candidat ku ci nekk day bëgg jiitu mais bu dee législative élection de list la foofu trouver consensus pour am euh, unité moo gën a yomb. Ah, mais boo defee noonu am si unité législative ba pare. imposer cohabitation président Macky Sall. parce que ñoom loolu non non non non à condition le cas bu ñu demoon 2019 ñu daal def am seen consensus defar seen liste bopp léegi ndax danañu am consensus pour am candidat présidentiel xam nga duñ ko am bu boobaa yëpp toj seen loxo. moo tax 2019 yu dajale élection yi. arrangé baaxul ci opposition bi baaxul ci opposition bi mais nag est ce que yow dañuy seet li baax ci opposition bi lu baax ci keneen. Ah, kon nañ respecté calendrier électoral kay nañ ko bàyyi ci biir koor gi ñu def li ñuy def rek mu jeex. door de ñu dem suñu euh, lu mel ni campagne électorale léeg-léeg yoo xam ne dafa tegginawul da ci jib euh, te mu tombé ak weeru koor ñenn ñi loolu la ñuy euh, ah, ñaawlu ak lu mel ni élection ñu di ko def ci biir weeru koor nga xam ne weer bu sell. non non 21 jours la war a na luy dugg ci biir koor gi am na luy nekk ci bitti koor gi mais est-ce que ci réewum saagante la ñu war a nekk loolu koy alhamdulilah ñu def ko ci biir koor gi bu ko defee kenn du dépassé kenn du dem ndax yàlla. mu nekk une campagne saine. saine et civilisée. Mhm. ñu teg ko ci charia teg ko ci diine loolu de def naa ne moo gënoon baax ku bañ loolu nag xaw ma loo bëgg. waaw léegi nañu wax ci fichier électoral bi parce que fichier bi nee nañu bu bii ñuy euh, togg sottiwul dañuy dem jëli ancien fichier électoral noo gisee loolu. ah am na ñu mu baax ci ñoom am na ñu mu baaxul ci ñoom ndax mas naa wax fii biis ne su élection yi doon suba président Macky Sall dana leen gañe ndax il détient le fichier électoral ca altine ba ñu ni si Cissé nee na Macky Sall dafay sàcc ci fichier bi may leen de da ngeen déggul sama wax dema ne leen Macky Sall le fichier de 2007 moo ko defaroon def wër Sénégal gépp yor fichier am. mu nekkee directeur campagne. directeur campagne président Abdoulaye Wade donc fichier boobu mu yor mooy fichier bu dëgër bi mooy fichier bi ngeen di wax ni ku mu ci àndal ci làmb ji daan la nga xam na fépp moo ko defaral boppam dem na ci présidentiel gis nga ni ci génne te amul woon dara fii mu nekk nag mu nekk président ba pare am xaalis am fichier boppam. ku mujj àndal daal la. fichier bi nag moo war ta nekk fichier boppam. non boo déggee man ne fichier boppam mooy fichier boo xam ne yaa ko tabaxal sa bopp. mil 2007. wër Sénégal gépp xam coin et recoin seet gars yi ni ñuy def te boppam beneen ministère de l'intérieur fi nekkoon ñu defar fichier bi bu fichier bi d'accord ñëpp d'accord ci consensus ñu dem ci làmb ji mu candidat am au premier tour. kooku kay fichier boobu du ko yàq da koy téye denc ko ci biir. waaw mais yow ci lan nga ànd fichier ancien fichier bi wala fichier bi ñuy toog muy nouveau fichier bi. pour man benn la fi mu nekk fichier bu bees bi bu ma sañoon pour benn coow bañ am fichier bu bees bi la ñuy demee élection ñëpp bind ci bind yu bees fichier bële fichier bi dafa bari woon ay ay ay yoo xam ni warut war nañ ko ci génne am na ñu faatu am na ñu tukki. am na ñoo xam ne soxlaa duñu wote yooyu yëpp mi ngi feesal fichier bi cinq millions trois cent ou cinq millions quatre cent c'est amul fii mu nekk booy xayma à peu près quatre millions de sénégalais ñooy faral di wote donc am na un millions et quelques yoo xam ni duñu wote kon nag ñu defar fichier bu bees teg ko nit ñi dem ci voter moo gën te mën na nekk. mais est-ce que fichier bu bees bi dana sotti. war na mën a sotti élection yi. war na mën a sotti gisuma ci benn problème. commission yi yokk nañ la sept cent et quelques commission kon ku bëgg a bindu koy man ngaa bindu ndax tey jii kat bu ñu ne woon ñu ngi seddale fee dara ñëpp dañu ne darañ daw dama ne woon buñ ci boole woon dara sax da ku bindu am dara ndax Cheikh Touré daan na ko def waaw ku bindu am dara léegi nag am naa yaakaar ne fichier bu bees bi daal war na mën a pare su parewul nag ñu dem ci fichier bu njëkk ba. waaw mais conséquence su fichier bu njëkk bi mooy xale yi nga xam ne ñoom ñooy soog a am 18 ans boo deful ndànk du ñu du ñu. voté du ñu mën a bokk ci boobu loolu aussi problème la donc nañu góorgóorlu ñun ñëpp ñu ànd ci defar fichier bu bees bi raxas ko moom mu set toilette ko ñu dem ci élection. mais am na ñu ne euh, fi mu toll ni dañu waroon arrêté fichier bu bees bi taxaw jël ancien fichier bi audité ko nettoyé ko. dugal ci xale yi nga xam ne ñooy soog a am 18 ans ñu dem ci élection. kon doo ci pare doo bu ñu paree ñu topp fichier. ba bala ngay auditer fichier bu njëkk ba rek at mi jeex. kon duñ dem élection mënul nekk ñaari mbir daal moo mën ne. nañu jël fichier bu bees bi jéem ko eggale. mu pare ñu dem ci wote ci wala ñu jël fichier bu njëkk ba teg ko ci taabal ji dem wote ji wax ji waaw loolu am na waaye yéen seen partie muy euh, sunu PSDS. Ah, ci législative yooyu ñu jëm ah, naam date bi kenn xamagu ko danañ ko reporter duñ ko reporter mais yéen est-ce que pare ngeen pour dem ci élection législative yooyu. est-ce que nañu pare c'est-à-dire dama leen di fàttali ñun ñu ngi bokk ci coalition pour l'émergence. bokk leen Benno Bokk Yaakaar non non non dafa am étape par étape. d'accord au départ ñun dañu woon faluñu Macky Sall bokkuñu ci Benno Bokk Yaakaar. daan nga ma dégg sama émission may sorti naa leen waaye benn bokk yaakaar euh, coalition suppu kànja bii du dara et cetera président Macky Sall wooñu ma ne ko man de ñun ñii ñooy de la vingt cinquième heure falu ñu la woon maanaam maanaam les transhumants du ñu transhumants nous sommes des gens de la vingt cinquième heure c'est-à-dire la vingt cinquième heure c'est la première heure du lendemain mooy heure bu njëkk ca beneen bis ba mais ñun yàlla dafa dogal ne pour l'heure passée yàlla dafa dogal ne ku mel ni man mel ni ñeneen ñi. Hmm. sengoor ba léegi ñu ngi fi président bu fi falu ñoo la fal amul xaaral ba suba wala ki on n'est pas parti la ñu jàppale jàppale wu ñu PDS jàppale wu ñu APR jàppale wu ñu parti socialiste déedéet man ku mel ne man soldat la un officier sama deret laa waroon a tuur pour sama réew dox kon nag président bu fi nekk réew mi fal la. yow laay jàppale di la jàppale ba yàlla jëlee fi keneen ki ñëw ñu continuer ci kooku ba ba ñuy faatu ñu daal noonu la ñu nekk. vous êtes toujours avec le pouvoir. je suis toujours avec le président de la république c'est-à-dire celui à qui population Sénégal ñoom la ñu dénk seen destinée ñun soldats yi ñu encadré kooku. mais dans ce cas là est ce que soxla nga parti waroon soxla parti. parce que parti vocation mooy conquérir et conserver le pouvoir. mooy li ma lay wax boo gisee pays réew yi ñu wër yëpp. yi ci ëpp ay soldats ñoo dem nekk fa président nangu pouvoir bi par la force toog fa ak i arme ñeneen ñi toog ba pare bañ a lànk bañ a dem ma ne man loolu nag du ma ko def damay jaar par la voie démocratique pour mën a contribuer à laction politique de mon pays du ma jël fetal du ma jël lu fetal damay dugglu gars yi jël ay carte un partie de solidarité et de développement sama parti ni mu tudd leer na solidarité ak développement de mon pays donc noonu laa ci duggee donc gis nga lima ma am élection bu ñëw ma gën a yokk ay mbir donc législative yii di ñëw ñun coalition pour l'émergence ñun ñoo ànd ak Benno Bokk Yaakaar defar suñu benn liste unique bu boobaa dem ay élection am 130 députés cinq yi ci des ñu may ko gaay wax ji jeex waaw loolu sa gis-gis la. waaye mais Benno Bokk Yaakaar déjà problème la parce que ñu ngi naan kan moo war a jiite liste bi am na ñu naan kii di euh, euh, président Moustapha Niass moo ko war a jiite kii di Mimi Touré di Aminata Touré nekk euh, directrice de campagne yow noo gisee organisation boobu. mbir moomu nag ni ma ko gisee mooy ah président Macky Sall daal baax laa ko mën a wax wala yërmande wala xaw ma li muy def sax lu mu doon mësumaa gis. parti au pouvoir bu jël assemblée nationale jox ko koo xam ni bokkul ci parti législature bi laa ko gisee kon nag loolu moom am naa yaakaar ne lu war a soppeeku la kon nag bu fekkee ne ñu ngi dem élection législative ki war a jiite liste bi dafa war a bàkki bokk ci parti au pouvoir bi te li daan am démb ak bërki démb moo daan ko daan nekk premier ministre yaa daan jiite liste bi. bu ma la déggee da nga bëgg kii di premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. yoon laa la ak li politique di tëral mu nekk yoon. mooy lan. mooy le premier ministre bi nekk fii ci jamono ja ñuy defar liste ba moom mooy jiite moo war a jiite liste bi bu fekkee ne dañoo tànn kenn ku nekk ci parti au pouvoir man de su ma doon defar danaa jël premier ministre bi Dionne mu nekk tête de ma jël madame Aminata Touré daf comme parité la un homme teg ko ci suufam. ñi ci des topp ci suñu demee nag ba gañee ba am suñu trente cent trente député Mohamed Boun Abdallah Dionne dellu ca primature am Aminata Touré yéeg nekk président assemblée nationale. mais loolu lan mooy efficacité bi ci sa gis-gis. efficacité bi mooy li nga xam ni moo war a am ndax xale bi xam nañ ko Mohamed euh, Boun Abdallah Dionne xam nañ ko ci sérieux ci calmam ci léppam et puis c'est la tradition qui veut que moo soxla ne ki nekk premier ministre moo war a jiite. Lissib moo war a nekk directeur de campagne bu ma sañoon bu fekkoon ne moom léegi beneen cas de figure am na ñu ni kon madame Aminata Touré na ñëw jiite si biir nekk directrice de campagne bu boobaa dañuy obligé jël beneen ku góor teg ko ci suuf une femme un homme et comme ni parité bi di wax boobu façon aussi war na mën a am mais ma fii jamono ji toll ak li arrivé du président Ousmane Tanor Dieng yaakaaruma ne président Moustapha Niass dana bàyyi politik dem toog gëwuma ko lu tax loolu ah yaakaar naa ci xëy na ci jikko nit ki la rek da gis benn wujje diggante mag Ousmane loolu kay du gisuma ko ñëpp ko gisandoo ñëpp a ko gisandoo ca taawu Abdou Diouf ba ca taawu Senghor ba nëgëni sax ñaar ñooñu moom mënuñoo bokk benn mbalk donc kii fii kii fii kii fii kii dem bàyyi fi kii non gawuma ko ci sama xalaatu bopp parce que en politique il faut savoir anticiper les événements xalaat ci pour mën a am benn nooy nooy doxale boo étudier wul benn processus doo ko mën a teg ci yoon cas de figure yëpp dañ ko war a xool président Macky nee na bon lui mu ngi doxal su sañoon ñoo ñëw gañandoo ensemble gouvernandoo ensemble c'est très bien mais ku dem nag ba xam ni say at wala sa wér-gu-yaram wala wala wala mayetu la ko mën ngaa anee kon nag sama doom yeeg sama sët yeeg sama kii yi bàyyil naa leen politique bi maa ngi toog fële nekk conseiller wala leneen wala leneen di leen xelal ah bu ma doon président Moustapha Niasse da noonu laay def waaye xale yi dem liggéey mais ci sa gis-gis yow ki nga xam ne moo di premier ministre actuel di Mohamed Boun Abdallah Dionne moo war a gis jiite listu Benno Bokk Yaakaar. moo war a jiite listu Benno Bokk Yaakaar c'est ça la réalité politique man waxuma farle kii wala ma di yoon tëral rek mu war a nekk loolu laay wax. mais contexte bi moo wutee parce que Macky Sall large coalition moo ko fal. Ah. bu doon moom ak partem la cundum wala moom ak ay parti lilliputiens ay parti yu ndaw ndawaan yu ànd ak moom du doon problème. Ah, mais la difficulté mooy législature bi ji génn nii. le parti au pouvoir nekkul majorité à la majoritaire à l'Assemblée nationale tey bu neexoon bu buñ koy war rek muy daanu ba fàttaliku leen 62 motion de censure ba donc le parti au pouvoir fi mu nekk ñu ngi dem cent cinq députés hein lu mu dee dee war na am 90 lu mu dee dee am au moins une majorité confortable li ci des ñun ñu ñëpp seddoo ko man loolu laa gëm. parti au pouvoir sécuriser boppam sécuriser boppam. di mën di am majorité. majorité di doxal ay loi mi muy kii ak ku ko mën a wor ak ku ko mën a kii mu dëgër ba toog. mu am majorité juróomi at du caaxaan. du dëgg surtout juróomi at yoo xam da ngay traversé deux mille dix neuf du caaxaan kooku en tout cas je lance un appel pour yaakaar naa ni président Macky déggul liñ ko wax. et ñun suñu coalition loolu mooy suñu xalaat nii la yëf yi war a demee. APR. am majorité. ëppale ci liste bi. voilà am mooy liste Benno Bokk Yaakaar mooy sa gis-gis. loolu mooy suma suma gis-gis. waaw noo gisee les partis coalisés yeneen yi ñoo mottali. voilà de 90 à 130 il y a de la place pour tout le monde. waaw noo gisee les 15 députés de la diaspora bi nga xam ne ñu ngi commencé di ci coow. bon ñi ci coow xëy na dañ dul xool politique dañ dul fàttaliku li xewoon démb suñu assemblée nationale bu njëkk ñaata la woon def nañu 100 def nañu 120. am nañ cent trente ba ñëw cent cinquante yëpp parti au pouvoir bi fi nekkoon ñoo daan yokk rek di yokk rek di yokk rek di yokk rek. moo tax président Macky Sall ñëw yokk. par président Macky Sall bi mu ñëwee ne waa diaspora bii nga xam ne dañ leen di fàtte te li ñuy dugal ci milliards fii ci réew mi la ñu bokk kenn waru leen sedd dara yéen su ngeen jëlee cent cinquante ba pare ñoom du leen sedd au moins le dixième des cent cinquante. mais lu tax dugaluñu quinze députés yi ci biir cent cinquante mënul dugg ci biir parce que boo xamee ni tëralinu législatif damee proportionnel ba liste majoritaire bi soo ko xamee doo xam ni foo laal rek gaañ kenn suñu jëloon quinze députés yooyu génnee ko feneen opposition bi du am dara plus fort resté ak yooyu fu ñu leen di ameeti non du baax ci opposition bi def naa loolu sax opposition bi ci boppam ñoo ko jëkk bañ jëlee ko ci biir fii du baax ci ñoom moo tax ça qu'est-ce que ça coûte dama Côte d'Ivoire ñu ngi ci deux cent cinquante et quelques députés. waaw Côte d'Ivoire taayam ak taayu. Sénégal taay man taay mais écoutement eh, bi ñu itam bul ñu sufeel ñun ay punkal la ñu. kon war nañu am assemblée nationale bu solide géographiquement parlant. assemblée nationale bu solide la ñu war a am cent soixante cinq députés quinze de plus wàññiwuñu dara. sunu budget attan na ko. ah fuuf ay ah, ñëw sunu budget ngi ñëw xamal attan na ko mais sunu yaakaaru budget yi ñëw mën nañoo am bu ñu neexee sax trois cent députés. yàlla dogal na bi président Macky Sall ñëwee ak léegi yàlla wàccee na fi gaz wàccee fi pétrole wàccee fi wàccee fi or baa ngi ne gàññ kon kay bu ñu neex on aura un budget de cinq mille dix mille milliards avec avec li ñu am ni yëpp kon kay vraiment fay ci quinze députés du dara pour man non non non c'est pas un problème bu ñu nar di wax parce que il faut nga xam ni ñëw ëllëg ñu ngi 2017 dans deux ans trois ans Sénégal fu nekk lañ koy dégg ci àddina bi ñëpp a daw gis nga tubaab bi ñëpp a ngi daw di ñëw ñëpp a daw di ñëw suñu budget de 3000 milliards danañ ko mën a yokk ba 5000 ba 6000 xale yi am lu ñuy liggéey jàng mi ki médecine bi lépp dox nañ ñaan yàlla rek yàlla may ñu fekke ko ku ko fekkee rek sa affaire dana baax. waaw léegi nañ waxtaan ci li nga xam ne moom lañu tuddee la crise ah post électorale en Gambie euh, ñu ne euh, CEDEAO ne dina installé ki nga xam ne moo di euh, Adama baro am ñu ne dañu war a xaar ba cour suprême ku mel ni président Yaya Jammeh cour suprême bi joxe résultat définitif ñu soog a xam exactement kan moo gañe parce que moom dugal na recours noo jàngate yëf yi. <laughs> ni ma ko jàngee daal yëf yi dafa doy waar yu simple la cour suprême boobu ngeen di wax ku ko ku ko fi teg cour suprême boo xam ne ña fa nekk sax duñu waa Gambie dañ leen jële bitim loolu lu waa loi yan moo ko nangu. moo ko maye. mais mënoon na bu ko neexoon mu jël ci waa réew daf leen ay juge mais ba mu demee ba wóolootul waa réewam dem abbi ji ñëw indi fa mu dem abbi ji ñooñu ne ko kat mënuñu laa abal ndax yow amatuloo fi baat problème bi c'est un problème de fond. non ñooñu tontuwuñ ko loolu. dañ ne bool wax ne yoo xam li nga xam dañu dañu ne non li ñu li ñu. li ñu wax li wax ci li ñu li ñu rendre public. Ah, ok li ñu rendre public mooy dañu ne ko seen calendrier. boo xam ne ñoom judiciaire permettre leen ñu libéré wu pour mun a ñëw euh, Gambie di statuer foofu. loolu mooy wax ju rafetal rafetal rek. mais kon wax ñu li ci suuf. waaw ci suuf mooy ñoom xam nañu ne lu ku njëkk ko lu mu njëkk a wax man du ma dem parce que du ma dem foofu di ànd ak waa ji li mu bëgg duma ko def le Nigéria loolu la njëkk a wax. ñu toog ba yàgg mu ne ah waaw suma calendrier sax mayu ma may dem yooyu yëpp rafetal la mais xam nañu bëgguñoo ñëw di def loo xam ni warul. te seen bakkan mi ngi ci xottu gerte suñ fa ñëwee ne ko kat baro gañe na la duñ fa génn kon nag duñ fa ñëw seen xel fukki xel xalaatul dugub biir Banjul mm-hmm. moo tax ñu lànk toog fële léegi nag lu xew yow gañu nañ la félicité nga sa waay demal ci jàmm CEDEAO moom mi ñu jox responsabilité loolu Nations Unies ñi ñu jox responsabilité loolu danañ fexe ba Baro ñoo toog ci palaasam. waaw yow fooy dugal recours président Jammeh recours boobu amul recours bi bu ma waxee recours ji kii yaay Jammeh quoi. ah déet candidat bu élection amee am nga droit def recours. ma ne boo xam ne ba ñu la gagné yow d'accord nga pourquoi ba mu ne félicité xaarul woon ba def recours bu pare soo ko félicité. non commission bi ci diggante bi commission électorale bi moo ne ay erreurs. non non non non commission électorale même bu ne constaté ay erreurs. yow xam nga ni mbir yi demee. Ah, moom yaay jàmm téléphone am lay jël raison pour faire un recours téléphone am lay jël. woo Ndiaye ne ko waa mbir yi ni mu demee nag mu ne ko waa monsieur le président de am na lu ma gis fii yooyu rek mu langam ne ko waa mais trouve-moi une solution. moom hmm. <laughs> mu jéem a fexe pexe moom ba mën a so bakkanam wut benn lay ba mën a dem yoonam mais affaire u bi daal bu ñu fi nekk di tàddal suñu bopp. baroo dana fa toog wax ji jeex par A wala par A mooy yaay xam li ko war mu dem. xamul li ko war une petite opération chirurgicale de quatre heures de temps ça permet de mettre le gant lool loolu daañ ci ñëwaat mais y a l'association des juristes africains te ils sont assez crédibles nag euh, ci sama yaakaar ñoom nee nañu li gën mooy ñu respecter la loi gambienne mooy maanaam nañ fa bàyyi cour suprême mu décider joxe résultat final ku gagné ñu ne la yàlla gagné baro buy prêter serment wala kuy mën a prêter serment nga prêter serment devant la cour suprême parce que ñoom proposé nañ sax ne CEDEAO war na mën a sax proposer ay juge yu war a mën a siéger kii di président Yaya Jammeh valide xam nga bu ñëwee ñoom ñoo choisir juge yi ñoom waa CEDEAO mënuñu ne juge yooyu président Jammeh da leen jënd. cour suprême bu toogoon ba mois de mai mu ne ah non non pareegu ñu nañ demaat ba janvier nañ demaat ba ça ne va nee opération chirurgicale quatre heures de temps. xalaat nga ne yëf yi dana yombe noonu. intervention militaire. weesu yomb day tam tëm waxuma ñun suñu armée sénégalaise sax duñ ci wax dara. Mhm. mais armée CEDEAO lañ lay wax waa CEDEAO yëpp force d'attente yi nga xam ni. Mhm. boobu ba léegi ñu ngi étudier kaa bu nekk nuñ koy doxale mhm. da nga foog ne ñoom na nga tëddoon di nelaw. xam nañu solution A wala solution B. xam nañ ne vraiment ak lu yaaya jàmm wax naa leen ko fii ba ma nekk États-Unis fan yële passé leen. am naa xam ne information yoo xam ni li ëpp ci armement bu diis bi yëpp jox na ko rebelu Casamance yi. ah bon ah dans les journaux sénégalais j'étais absent du Sénégal absent du Sénégal mais je l'ai fait publier. mais ça c'est grave. pas grave c'est une information réelle sûre. ne Yaya Jammeh moo jël di dama ne Sénégal léegi jox ko rebelle yi. waaw léegi Sénégal dafa am droit d'ingérence ak devoir d'ingérence dans la mesure ou sunu ennemi di sunu adversaire mi ngi jël ay armement jox ko sunu ay rebelle pour ñu attaque ñu demain créer ay mercenaires kon nag ñun sunu devoir d'ingérence la ak sunu droit d'ingérence bu dul woon CEDEAO sax ñu dem attaquer ko ci saa si parce que xam nañ li xew donc ce problème là le président il est pacifique il est diplomate mi ngi ko mi ngi naxante mais du yoon normalement bi ñu xamee ne affaire bi am na rek. je l'ai fait pour que personne n'en ignore j'étais aux États-Unis j'ai l'information je l'ai fait publier au Sénégal lii mooy am waa ji mi ngi def lii waratuñu woon toog di xalaat. waa mais est-ce que mbir yi du gën compliqué déjà yaa ngi naan kii di président Jammeh nga koy accuser ne jëm na armement yóbbu ko ci euh, rébellion bi jox leen ko ndax ñu xeex ak Sénégal. oui loolu euh, tey bu dee euh, am na intervention militaire. fële nga xam ne moo di Gambie. Ah. est-ce que du am njeexital. ci li nga xam mooy crise Casamance ah, mu gën a compliqué non non non crise Casamance bu fi waaj waaj yi jógee crise bi jeex bu yaayee jaame di dem crise Casamance di dem ah bon oui moom moo leen daan jàppale mooy le principal rebelle moom moo jiitu woon mas naa la wax suñu émission ci fa booba yaa nga feneen mais la on ne négocie pas avec un rebelle moom nag léegi bu buñ ko euh, euh, sërxatalee mu dugg ci rébellion bi nag mbaa du gën a garaaw dëgg la ma ne quatre heures de temps la on a besoin de quatre heures de pour régler ce problème quatre heures de temps dugg ci rébellion bi xaju fi. doo dugg ci rébellion. moom mu dugg ci ñaay bi du noonu. waaw moom laa moom yee président Yaya mu dugg ci ñaay ba fekk rébellion. ci quatre heures de temps mun naa ne xanaa bi ci kanilaay kooku du dem ci néegu ñax rébellion. Hmm. li mu am ci buur tàmm na lu noos moo tax bëgg fi jóge na dem Maroc tëdd ji wala mu dem Nigéria tëdd ji continue noosam xam nañu ne xaalis bu mu yóbbu Panama yëpp la ñu xam tout on connaît tout nañu lépp. comme li koy may jàmm mooy mu dem may jàmm waa Banjul suñuy doomi ndey lañu suñuy mbokk lañu bu ñu fi indi histoire même histoire bi bu ameet du yàgg matul une journée man maa la ko du mel ne Fodé Kaba 1 du mel ne Fodé Kaba 2 Fodé bi du mel ni comme yeneen yi de amee ah gis nañ fi jamono yi ku koy Samba Sagna sénégalais yi fa dee ni mu bare te booba Gambie amul armée wéy oui boobu aussi ni mu demee mooy sous-estimer dara toog ba yàgg nga ne ah nañ dem rek def nii def nii def nii kii et cetera et cetera bokkul léegi <laughs> guerre dafa changé y a les drones da ngay nekk ci kaw di xool nit ki fi nga nekk su fa rëy ma di la gis dafa changé moom xam na ko xam na ne fu mu denc arme fu mu ko nëbb même bu jëlee ay village ñu wër loolu pour ñu bañ a bombarder fi armement bi nekk gars yi xam ne nu ñu koy def ba chirurgicalement régler problème boobu ah am na daal am na yaakaar ne du warul poser problème. bu buñ ko tegee ci yoon. <laughs> waaw mais mais yow da nga gis ne du am euh, conséquence du am du yokk trouble Casamance mais am na ñoo xam sax ils vont plus loin. Hmm. nee nañu sunu pétrole bii nga xam ne tey euh, ñu ngi koy euh, commencer di explorer am exploitation sax seegul mais ñu ngi koy explorer tey bu ñu demee mu am trouble ah diggante Sénégal ak Gambie zone bi xaw am ay turbulences. dina dem ba nga xam ne day mel ni yeneen dëkk yi nga xam ne pétrole am na fa te muy yëngatu je m'explique bu boobaa ñi nga xam ne ñoo di euh, force occidentale yi dinañ ñëw proposer ñu seeni service pour sécuriser service yooyu ñuy proposer euh, boo deful ndànk ci pétrole bi lañ leen di fay noo gisee loolu waaw <laughs> d'accord mais yow fi ngay xoolee ñun déjà jàppal ne passé nañu exploration non ñu ngi exploration ba léegi. waa ñu ngi ci phase exploitation quand euh, on ne peut pas. l' exploitation c' bu baril bi génne. voilà mais exploration da nga koy def mu pare nga génne say këyit génne see résultat am na développement waxanteeg réew mi et léegi mu desee la phase exploitation. donc je suis du pétrole xam naa lu ma lay wax donc boobu ko def féete na boor ñaareelu affaire bi mooy ñooñu ngay xalaat day fekk ne mu ne conflit bu yàgg je te parle d' un conflit de vingt quatre hmm. heures au au plus. kooku kay amul problème dégg li ma la wax ñun ak Banjul benn lañu benn dëkk bi la du ñaari dëkk du ñaari territoire benn dëkk la donc am na benn waay bu fa nekk rek te c'est domage vingt deux ans Gambie bàyyil population bi bàyyi leen noonu ñëpp di seetaan du yoon waxoon naa leen ne xale ak xale ñooy jëflante yaay jàmme Macky Sall bis bu ñu dajee wax ji jeex ba ma koy wax boobu xalaatuguñu woon élection yi commencé mais nag comme day dox dof lu rek nañu bàyyi waa ji di ñëw dana xam ni moom day sol sax <laughs> Macky Sall de sol tenue militaire faf hmm. ñoom xam nga ni kooku waa ji xam ne ku mu amal affaire yàlla may ko sutura li jafe woon président yëpp yàlla indil ko ko sur un plateau door waa ji dem yàlla dogal ñu gañe ko ah am naa yaakaar ne de bu seetaanee ba yëf yi rëcc ci loxoom bu boobaa moom ma génn ci moom. Euh, noo gisee exploitation pétrole parce que junj nañ ko léegi. Euh, pétrole bi actuellement au Sénégal ni ñu koy géree noo ko gisee. ni ñuy gérer exploitation pétrole. exploitation phase bi ñu toll maanaam daal la question du pétrole et du gaz globalement. oui la question du pétrole bi ak du gaz bi ki koy gérer créé na cos bi. Njaay mi nga xam ni moom la ko jox doon patron ci ba mu nekkee Petrosen ku xam mbir yi la boo amee yow léegi benn. kilifa bu mag nga dénk ko ko yow mi ku ko dénk di ingénieur loolu am naa yaakaar ne problème du ci waran mën a am di guddal jël ndax lu ci nekk xam na ko booba mu nga nekk directeur Petrosen bi ko yàlla mayee nguur gi la mu xamoon téye ko mu mettre ko en application signé kayit yi après yëf yi jeex donc gisuma ci benn problème ah ni nit ñi wax nii gisuma problème pétrole future gisuma ko neex yàlla ndax lii xam-xam bu ñu amoon la depuis 78 daan naa ko wax ci émission yi ne bis bu réewum Sénégal amee 60 ans d'indépendance xéewal yëpp danañ fi wàcc te yàgg na boobu président Senghor moo fi nekkoon daan naa koy faral di nettali sax sumay émission yi mbir la kooku moom benn problème du ci bu neexee yàlla réewum Sénégal du toll ni mu mel nii am ay kilifa diine yu mel ni suñu kilifa diine yi ñu am ku mel ni suñ Tuubaa daan dem Gabon di jaar ay lamb ne ak xéewal yi dafa wàcc te du wàcc ci réewam mënul ne buñ sunu ñëpp àndoon sunu xol yi d'accord ci lu ne danañ ko am ñun Sénégal. waaw euh, est-ce que généwuloo un peu ni Total fas yéene dugg see parce que dañu gis ne bi président Macky Sall demee Paris ci lañ annoncé ne Total dana dugg ci mbirum pétrole u Sénégal. Euh, déedéet foofu mbirum da ngay xool ne yëf yi dafa bett ñu bari. total yàgg na fi lool trent cinq ans mi ngi fi. France yàgg ci distribution pétrole. ci distribution pétrole te mi ngi doon def exploration exploitation ci yeneeni gox. mais mu xalaatoon na sax ndax BRGM xamoon nañ ne am na fi ay trace pétrole mais wóoru leen woon maanaam yàlla ubbiwul ubbiwul woon bëtu nit ñi ba pétrole bi mën a génn kooku wërsëgu président Macky Sall ko yàllaa ko dogal. total avant ñuy wax waxi total avant président Macky di dem France. xooloo pré eh, ministre yi fi déroulé yëpp ba seen premier ministre bi ñëw fii mooy daa ndeke lii am na réewum Sénégal sama kaa ñu waxtaan attention comme ça que ça président bi jékku-jékku rek dem foofu di négocier ak Total déedéet. kon dañ koo yóbbu. neexal ko du problème mu neexal du problème jël sunu pétrole. du problème mu neexal yow itam boo nekkee nit nekk ak sa xarit ngeen nekkandoo di nekkandoo ba sa kër am xéewal bu fa bu fa feeñ ci mbetteel dañ la sama waay yow kat. bu ma fàtte de. ça c'est plan humain. les états les états n'ont pas d'amis. si si dañuy wax les amis non ils n'ont pas d'amis ils n'ont des intérêts. loolu moo tax xaritoo yu bari kat intérêt rek la. rokki mi rokki yow maa ngi jox yeneen réew yi pétrole am na yeneen bloc yu fi des attention il faut comprendre l'affaire de totale aussi ñu bloc yi ngi jox américain yi ñoom la ñuy nangu jox ko Total déedéet Total soo bëggee na nga am na yeneen bloc yu fi nekk. ñëwal nga dem yow itam seddu ñëpp fi xëj dégloo ma ne li am Sénégal danañu dem ba bokk ci OPEP ci ñi nga xam ne ñoo fi ëpp pétrole bu neexee yàlla kon nag ñëpp xëj nañ ci américain yow <laughs> espagnol oo français yoo ñëpp xëj fit ñu tasaare nag indi wujje bi loolu moo gën moo tax France aussi vraiment kenn mënu ko négliger même bu fekkee ne colonisation bi demee na ni demee na ni demee na ni buñ ko fàttee daal ci gàttal. waaw mais euh, euh, dañu gis lenn euh, ci nguuru président Macky Sall mooy le retour en force des entreprises françaises gis nañ ko ci train express régional bi TER bi wagon yeeg signalisation yeeg rail yeeg lépp entreprise française lañ ko dégg. waaw pour ma mën a tontu foofu xaar mu sumi sama mbax na parce que da nga war a xam ne booy dem di wut dara da ngay dem ca ko gën a man fii ñu dem wuti fay saxaar wuti fa li ngeen di wax terre te man d'accord gu ma ci sax ba sa kanamee naa la ko wax train express France la yàlla may ñu jëkk ci defar saxaar dàq fee defar saxaar bërki demb laa jóg États-Unis train wu bu France liggéey ci laa dugg dox samay course ba pare dellu si ndegam États-Unis ñooy dem France di fa wut saxaar train Chine di dem France di fa wut train waxtuma ñun ñi nga xam ni boo cinq heures de temps ñu ko foofu kon c'est c'est normal que ñu dem France ci ngi ki nga xam ni moo dàqa defar saxaar te mu yomb ci ñun te ñu jël seen alal deux cent milliards dugal ko ci biir ñu dem ci ñooñu loolu mooy mbir mi bu foog ne rek <laughs> dañoo France dafa ne nii rek non non non. ay cinq cent et quelques milliards pour yow lu yomb la. dégg lu ma ne cinq cent et quelques milliards yi France dugal na ci deux cent milliards déjà ndawtal mu des ñaata trois cent et quelques milliards. trois cent et quelques yooyu bu ñu nee terre léegi wax naa ne terre ci boppam kenn waru ko ko tuddee terre c' est pas un train express régional. ah déet kooku da nga koy moom laa la man xam nga itam mooy li ma la wax moo ko tuddee. parce que dañ ko xelal technicien bi wax ko mais je ne suis pas d' accord. mënoo jël fukki sax train ak juróom fukki train ak juróom benn train bu nekk am quatre wagons mu nekk un réseau nga naan ko un train du train c' est un réseau. c'est un grand réseau comme le RER e français kon daal bu ma la déggee train express régional du doon benn train kese ak locomotive ak ay wagon déedéet quinze train lay doon 15 16 sa am na benn train de réserve 16 train la ah bii voie bu bii dawee ñëw nii bii daw ñëw nii noon la ñuy dawalante quinze minutes yu nekk koy itam yenwul maanaam 15 minutes yu nekk benn train war na ñëw ok beneen train départ fële ko xam nga mënul nekk benn train moo tax nga ko réseau moo tax ma ne bu ñu ne TER je suis pas d' accord c' est pas un train express régional c' est un réseau express régional c' est comme le RER en France hein c' un métropolitain gars yi dañuy wax rek souvent des trucs comme ça te du ñu étudier la ñuy wax lu mu doon. waaw mais est-ce que ambition bi kon xawul gàtt parce que bu fekkee dafay nekk un truc métropolitain rek tey Sénégal dafa pose euh, am problème mu euh, li nga xam ne moo di désenclavement. ah ñu war ko régler ñu war a désenclaver surtout le sud. ma ne ah léegi euh, lu mel ni train express boobu waroon na régional ak nuñ ko mën a tuddee. Mhm. mais waroon na mën a tey am mhm. ambition. Mhm. relier par exemple ay région dem sax ba ay Tamba pour mun a faciliter la circulation. waa sëriñ bi ñi xam ni mbir yi demee xam nañu ne Chine ci boppam moo war a defaraat raayu Dakar Bamako 700 milliards. ndax loolu Dakar Bamako la. mooy li ma la dama lay wax rek c'est les rails d'abord boo defaree rails yi. indi train yi muy dem ba Bamako ça veut dire que boo ñëwee ba Tamba nga jël foofu beneen raay continuer dem sud dem euh, Ziguinchor beneen bi dem ci phosphate Matam yi kooku ñëpp xam nañu loolu am na ngi plan la am na ba pare <laughs> defe naa ni Macky Sall day daw doxul moo tax bu gars yi ne réew mi doxul mañ leen a ah, wax na dëgg de doxul day daw moom nee na réew mi sax day naaw dafay naaw fi mu nekk non parce que booy wax affaire u bi terre bi ñëw na fekk na affaire train bi ngay wax nii bi jëm Casamance ak jëm ki yooyu pare na mm. bañ fàtte ko. Mm. soog a wax nag léegi le RER du du Sénégal. Mm. mbir yi noonu la demee. Mm-hmm. foofu ñun dama ne lii du betteel fii Sénégal su ngeen fàttali ko bi ñuy tabax jumaa Touba sëñ Modou Moustapha Mbacké moo jëlee raay bi Diourbel à ses frais yóbbu ko ba Touba tey jii bu ma doon tuddee li ñuy waxee. TER te ma koy wooye RER man moom laa koy tudde RER Serigne Modou Moustapha Mbacké moo ko yellu lépp lu jëm ci saxaar fi jëm ci raay moom lañ ko war a tudde école bu ñuy tabax ak ñu war a defar yëpp moo ko yelloon moo loolu moom xalaat naa ko te yaakaar naa danaa ci waxtaan ak président Macky Sall. waaw euh, la transition est tout trouvée yaa ngi tudd euh, kilifa gu mag googu ci wàllu diine nañ waxtaan ci cité religieuse yi nga xam ne. président Macky Sall nee na da koy moderniser gis nañ jéego yu mu ci teg quand euh, noo jàngatee initiative boobu. Euh, lu tombe la ci moom loo xam ni daf histoire dafa may rappeler roi Fahd bu Arabie Saoudite bi yàlla dogalee mu falu dafa ne moom mooy le gardien des lieux saints serviteur daal di defar Makka ne day defar Médina ba caterpillar yi commencé gas. pour yokk jumaa Madina la fa génn ci oor mën na dundal Arabie Saoudite soixante dix ans président Macky yàlla may ko xalaat bu mel noonu mu song kër diine yi man ma koy wooye may itam fii ci Sénégal le serviteur de lieux saints. moom président Macky Sall. bâtisseur des lieux saints au Sénégal. noonu nga ko duppee moom laa ko tuddee moom président Macky Sall. Hmm. mooy le bâtisseur des lieux saints et serviteur des lieux saints au Sénégal. moo ko fi def kot wane ko bu ko defuloon duñ ko ko wax moo dugg ci kër diine yi yëpp nekk seen serviteur bâtir leen seeni kër ak seeni juma kon nag ku ko tuddewul da ngaa iñaan wala nga soxor wala nga gumba te sëñ <laughs> Musaa Ka nee na gumba yëpp gumba ci xolay wax ji jeex kon nag dañ koy accepter loolu yàlla moo ko dogal te ba mu ko defee am yéene bi le pétrole bi bal gaz bi bal kon nag vraiment moo ko yelloo dañ ko ko bàyyeel ku nekk li la yàlla may dañ koy nangu bàyyi ko yow kon nag transition di nga doon wax man noonu laa ko gisee am leneen ku mën a weddi lii ma wax nag na ko indi waa mais est-ce que du bokkul ci ay mission am ah, le fait ñu jàppale kër diine yi moderniser leen kooku euh, c'est sa mission yen mission état la sox sox état moo war a def loolu donc euh, ana ndam li am na ndam bi Senghor de bu mu fi nekkee ñëwoon na inauguré forage ba ci Touba Abdoulaye woote ñëpp ñëw bi mu demee Abdou Diouf am na lu mu def sëñ Abdou gërëm ko ci sant ko président Abdoulaye Wade it bi mu ñëwee jël na alal ju bari di leen ko jox Macky Sall bi mu ñëwee yàlla may ko xalaat ne ko ginnaaw forage yeeg yooyu gis na ni place yi nga xam ni kër diine yi ay gan dañ fay war di ñëw ñu war leen a teral loolu moom mission boppam moo koy jël ci fond politique am def ko ci pour teral kër diine yi tabax fa ay kër dalukaay yoo xam ne moom bu ñëwee ak buur bu ñëw président bu ñëw mën nga faa dëkk nit ku nekk président bu nekk ak la la yàlla di jagleel moom yàlla jagleel na ko xalaat loolu mu ne nag je serai le bâtisseur et le serviteur des lieux saints du Sénégal du wax du dige mu def ko muy loo xam ne jëf lay doon nee na un homme d'action Je suis un homme d'action. Un Sénégal pour tous, par tous et kon loolu moo ko fi wax rek yàggul. xam Sénégal ñëpp a ko bokk te ñun ñëpp ñoo ci war a def moom mu jël wàllam def ci li ko yàlla may. képp ci ñun lii mu def ñu waroon nañu. ku ñu nekk waroon na génnee lëf ci poosam def ko pour suñu kër diine yi. mel nii mu mel léegi. d'accord. léegi bëggoon naa ñu balaa ñuy jeexal ñu wax li nga xam ne moom moo di crise au partie socialiste parti socialiste fi mu toll nii yëngatu na ñoom Bamba Fall ak ñoomu àndal jàpp nañ leen tëj ah euh, jiiñ leen song bi ñu songoon maison du partie socialiste tey xalifa euh, Sall ñu ne moom mooy problème bi parce que moom ñoom ñi ànd ak moom yëpp dañ leen fas yéene faagaagal noo analyser d'abord situation bi nga xam ne moo nekk ci biir parti socialiste. waaw parti socialiste day bu ma ciy wax daf naa am naa tuuti lu ma ci xam lii dal parti socialiste jamono ji dono la dono ci hmm. Senghor la ko commencé woon bu ngeen fàttalikoo dem si yàlla Demba Diop Abdou Ndaxe Faye ko jëm paaka ci bu ngeen fàttalikoo yeneen ak yeneen ci ba ñëw hmm. bu ngeen fàttalikoo ba Ndaxe Faye defee loolu sengoor yóbbu ko justice rek yam ci de dañ koy yóbbu justice atte ko yóbbu ko champ de tir fetal ko teel bal mu dee benn ñaareel ba yi ci xewoon yëpp xam nañ ko ci parti socialiste kon bu lii amee tey ñi xamul ñooy wax xiiroog ngaayoo bi am ci parti socialiste mais loolu doona bu yàgg a yàgg c'est un grand parti aussi un grand parti toujours il faut mu am yu mel nii mais l'affaire de xalifa Sall su amee di diir mbagg secrétaire généralam loolu faute bu graaw lañ koy considérer comme ñun l'indiscipline dans un parti. nan mu war a nekk conséquence bi d'abord. conséquence bi nga xam ni commencé na moo di ñi def faute yi jàpp nañ leen denc nañ leen ci kaso bi moom mi nga xam ni nee nañu woo wóoruma de moo leen yabaloon ah mi ngi toog yanu pois boobu pois bu diis la bu fekkee yaa jël ay ndaw yabal leen ñu def dara ñu jàpp leen tëj ci kaso bi ah bu doon man de maag ñoo fay ànd du ma toog ci bitti xaw ma nu may gis mbokkam hmm. te loolu nit ñi xam nañ lu lu bari lu bari lu bari lu waxul. mais est-ce que mbir mi toujours bu ñu toogee ci coow loolu est-ce que mbir mi waruñu woon euh, ko régler en internet utiliser ay règlement intérieur u parti bi statut u parti bi ba nga xam ne ñoom dinañ leen sanctionner en interne te du jar ñu yóbbu mbir mi ci yoon. dama yaakaar ne bu yëfi jaaroon fa mu war a jaar noonu lay demee mais dafa am lu ko jiitu boo seetloo ba ñuy contester élection secretaire général bi. te noor problème bi commencé na foofu. ay yu baree bare yoo xam ni du waxi mbedd am ci seen biir lii aboutissement la. Mhm. flamme bi la ñu gis nii rek mais la nekkoon ci biir di di tàkk ci suuf yàgg na ci et am na ba pare nag léegi nañ ko gérer ñoom nañ ko gérer ñoom seen biir mhm. parce que war na cee mën a am Xalifa euh, bu ma ko doon conseiller dinaa ko wax ne ko warul def loolu warul dafay dem ci Tanor bu demoon ci président Tanor waxtaan ak moom jàmm dana am. waaw parce que ñoom li leen wutale li leen wutale Alaaji Mansour Mbaye war na leen woo. waaw ñoom li leen wutale li leen wutale c'est clair. ñii dañu ne ñi ànd ak Khalifa ñoom il n'est pas question ñu bootu ci ginnaaw président Macky Sall ci législative yi ñu jëm rawatina présidentielle yu ñu jëm 2019 mm, kii di nga xam ne moo di euh, secretaire général euh, bu parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng ne moom day fas yéene continuer compagnonnage am ak président Macky Sall loolu moo leen wutale waaw leneen wutale kii mu ngi jiitu ne dam ànd ak président Macky Sall ñeneen ñi jóg ànd ak Khalifa Sall mais nañ leen fàttali ne tey Khalifa Sall bu ñu koy tudd tudd maire Dakar président Malick gàkku mi nekk créé grand parti nekkoon AFP moom moo tax mu nekk maire Dakar. loolu nu mu mën a nekk élection 2009 yi. nga ne Malick Gakou. président Malick Gakou. moo tax. moo tax Khalifa Sall nekk maire Dakar Dakar loolu nu mu demee. ba ñuy def élection 2009 yi ñoom xam nañu man xam naa dajaloo nañu waxtaan suñu biir ma leen di jéem a combine pour yóbbu leen ci président Ablaye Wade. président Pape Diop mii nekk maire nekk maire wu Ndakaaru yu ci bari sax mënuñu ko wax ci kii mais yëf yi doxul xale yi àndandoo ñoom séddoo seeni mbir ñu ne Serif Macky Sall nañ ko bàyyi ma euh, Malick Gakou na dem conseil régional Khalifa Sall nañ ko positionné maire Dakar Barthélemy ñu bàyyi ko ci maire et cetera et cetera ñu séddoo seen biir séddoo ci seen réunion bu ñu def xale yooyu Seydou Sy Sall Barthélemy Malick et cetera sous l'égide de Malick Gakou du ñu nëbbante du ñu réerante moo tax ba Khalifa Sall tey nekk maire de deuxième élection bi su amul woon ay erreur de positionnement diggante Mbaye Ndiaye Adam Aminata Touré yooyu Khalifa Sall dootul nekk maire Dakar ay c'est des erreurs de placement des erreurs stratégiques mais c'est pas lui qui dirige moom ñi xam nañ ko xalifa bugguma ci sori ndax sama mbokk Louga la nit ñaa ngi koy tam sax mu am ñaari kayitu juddu. yow bu ma lay dégg. ñaari kayitu juddu. moom xalifa Sall ah laa dégg lan mooy ñaari kayitu juddu. dégg naa dafa amoon kayitu juddu ba yàgg mu dem def naa laay wax. da nga bëgg a wax ne il est plus âgé que ay mbir la daal yoo xam ni ci biir takku jabar wala yooyu daal li ma dégg daal laay wax. waaw ah, mais dafa leerul ñu ngi koy ruuma daal naa fan yi journaux yi. non dafa dafa parce que fii mooy. amul na fii amul na boo amul na <laughs> boo amul na boo mais tey ji <laughs> junj naa la mbir ci kanam bis yi ci kanam dana leer. est-ce que loolu bokkul ci arme yi ñuy yëkkati rek pour xeex Khalifa Sall. déedéet dëgg la lu dëgg la man sax dama jaaxle ma ne waaw nguur gi xam yooyu yëpp téye ko di ko xaar xam naa ne mooy bot secret bu mujj bi nga xam ne buñ ko ko dóoree rek yëf yi jeex. mais euh, am na revers de la médaille. Hmm. tey bu ñu songee Khalifa Sall on risque de la victimiser te bu boobaa moom mooy engranger les marrons. song nga wax c'est-à-dire bu fekkee ne nit ki la nga koy jéñ dëgg la. song bi du metti ay mbir a ngi ci biir yoo xam ni daal dëgg-dëgg yaay amul nëbboo mais nañ ko bàyyi ba ci kanam nañ ko bàyyi ba ci kanam. xanaa dafa am un cas xanaa dafa am un cas Khalifa Sall. Khalifa Sall il dérange. waaw dëgg loo ma ne la Malick Gakou ko fal kon xam nga kooku dootul cas. kon yow da ngaa xeeb am mën-mënam. dëgg-dëgg. xalaatoo mu mën a nekk euh, koo xam ne dina sonal président Macky Sall ci <laughs> ay élections. waaye bu ma non loolu mënul nekk yéen tam da ngeen di. Ah, xool ah ñi koy ngemb de loolu lañ xalaat. non non non non non ndeysaan boobu dama leen di wax ndeysaan. Hmm. parce que dëgg-dëgg bu ma sañoon man du ma wax dara lu ñaaw ci nit. mais comme dangaa indi sa émission amul na boo te man du ma fen du ma wax lu ma xamul du ma wax lu ma gëmul moo tax ma wax la ci lii mais ñii wax loolu nañu xaar tuuti ba ci kanam mbetteel bu rëy dinañ ko am waaw ndax ma itam je suis dans une coalition pour l'émergence dekk ci majorité présidentielle war a jàppale pouvoir boobu donc lépp loo xam ni moo leen di may doole danaa ko wax lépp loo xam ni dana lor ay adversaire am danaa ko wax loolu mooy tax ma jël position bi mais maa ngi ñaan yàlla daal ñu xalaat ni mu war a demee mu demee noonu parce que boo gisee tey ji ma dugg ci tenu bi sax mooy tax tey damaa ñëw pour wax amul na boo dara bañ ci am lu ñu làq mm-hmm. bu doon yeneen bisi comme ni ma la waxoon ne bu ma kenn waxati colonel wax ma Cheikh Malick Cissé booba grand bu laay sol bu ma ñëwee wax ji tegginu laay wax yeneen laay yoon moom c'est le combattant c'est le combattant te da nga fas yéene combattre Khalifa Sall ah évidemment ni ma la déggee évidemment c'est-à-dire l'opposition je ne parle pas de Khalifa Sall nous sommes là pour combattre l'opposition pour faire disparaître l'opposition non dëkk nag day am opposition nag yow mais y a une opposition républicaine et une opposition nga li la donc bu dee eh, euh, opposition boo xam ne républicaine comme ñu fi présenté ñoom nekke woon ak ñun temps bi ñu nekkee ci PDS ci ci ci Abdoulaye Wade di liggéey yëf yi dafa calmoon jusqu'au dernier moment mais ñëw rek ki yàlla may ko nguur jox ko wërsëgam jox ko lem nga ne ko du fi amee loolu nag mu duñ ko seetaan waaw mais opposition rôle am mooy critiquer ki nga xam ne moo yore pouvoir bi lu doxul ñu ne doxul bu amee ay problème mu démocratie ñu dénoncé ko bu laajee marche ñu marche bu laajee bind ñu bind bu laajee wax ñu wax loolu mooy rôle opposition am nañ ci droit ndax opposition comme ni nga ko waxee dëgg la réew mu nekk war na am parti au pouvoir ak parti bu nekk à l'opposition mhm. mais na fekk ne opposition bi nekk une opposition pour la république une opposition pour la nation. ban jéego lañ teg bu tax nga ne ñoom ils ne sont pas républicains. mais depuis man bi ma leen fi gisee ba léegi du ñu wax waxi fulla du ñu wax waxi faayda gisaguma luy constructif luy tabax réew mi loo xam ne jóg nañ ci di ci wax. parce que nous quand on par d' opposition opposition bi normalement parlementaire ñu ko assemblée nationale di opposé wu di werante ci loi yi di xëccoog di xeex ñeneen ñi nga xam ne mënuñoo am sax as député nekk ci biti bëgguñu woo leen alors donc ça problème. loolu dafay poser problème mënoo nekk ci biti rek bëgguñu wala jox la dara wala ñu noppi loola que nga ne tey naa sànni xeer c'est pas possible loolu warul mën a ne kenn du ko nangu. waaw mais loolu xëy na ñenn ñi la toog nag mais dafa am loolu waaw mais dafa ñi ñenn ñi la mais dafa am opposition boo xam ne ñoom seen objectif leer na mooy jële fi kii nga xam ne moo di président Macky Sall. te législative yi ñoom ñu imposer ko cohabitation ñoom liñ bëgg leer na. waaw loolu li nga wax yooyu wax si biir wax nga ne nañ fi jëlee ki fi yàlla teg. non élection non. élection nag loolu lay jëriñ. waaye ma ne bu ñu sonal entre le pouvoir et l' opposition pouvoir bi day jéem a conserver li nga xam ne moom la yor. waaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi di jéem nangu ci moom li mu yore loolu mooy. loolu mooy le jeu démocratique loolu mooy le jeu démocratique. dans le cadre de su koy ne am na opposition massive c'est opposition boo xam ni population bi ñoo fe ñoo fexe ba ñu nekk opposition. Mm-hmm. mais ñaari nit ñetti nit dem wuti parti politique cabine téléphonique daal di opposé. kenn ki jóge fee waroon naa avancé avancer wu ma opposition et cetera et cetera loolu du opposition boo xam ni représentative du peuple la représentative opposition bi dafa war a représenter peuple bi ñu xam ni ñii kat toll nañ ci parti socialiste kenn wul ne bu ñu nekk opposition di wax wax nañ dëgg ñuy teg seen yoon am seen maison du parti di fa def li ñuy def opposition la même suñu fractionné am ñu jóge ci ñoom ndem feneen ak pour d'autres visions yeneen affaire kooku beneen mbir la loolu d'accord naa ci mais yàlla dafa dogal may Macky Sall loo xam ni may ko woon ñeneen ñi lu nekk daj nañ ko ñun pour am PIT am LD am am kam am pour indi leen c'est difficile yàlla may ko mu dajale ñëpp téye leen kooku nag dañ ko ko nangul mon colonel euh, ñu ngi lay gërëm di la sant ci li nga teew fii sunu émission amul nëbbo di rappeler rek ne daaw tamit euh, yow yaa tijji woon émission amul nëbbo ren yaay sunu deuxième invité mais toujours ci premier invité yi ngay bokk ñu di la ci gërëm di la sant. ah jërëjëf ñoo ngi leen sant di leen gërëm yéen jërëjëf. merci mon colonel euh, yéen tam mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne ki ñu doon dalal tey mooy le colonel Malick Cissé. moom nag mooy président parti bi ñuy wax parti pour la solidarité et le développement du Sénégal ñu gën ko xam ci sunu PSDS di leen jox dox daje dimanche bi di ñëw ci beneen émission amul na boobu 15 heures jotee maanaam ñetti waxtu ci bëccëg dinañ ko rediffuser àllarba àllarba di mercredi bu 16 jotee maanaam euh, ñeenti waxtu ci bëccëg di leen wax rek ne seen émission amul na boo neen ko xamee bu ko kenn tardé ndax fii la lépp di leere jërë ngeen jëf.